fo wajib na nga takkoog fexloo jëf ko moy na nga bari loo koy def mom nafila ka baada zuhrin ni ki gannaaw subar arban nga julli ñent rak lolou luñ sopp la wa qablu ak njëkk subar manam subar bra nga koy julli nga julli ñent rak gannaaw julle pare nga julli ñent rak loolu am na xadis bu ci rot dana ko wax sarxa bi ka qabla asrin ni ki njëkk tàkkusaan balaa nga julli tàkkusaan sopp nañ nga naafila naafila yëpp ñu wax nag dañoo wax ñeent rakk rek waaye boo jullee ñaar rakk baax na waaye ñeent rakk nag moo ci gën ndax xadis yi ñu war a jàng ñeent la wax gannaaw saan waxut ko nga day gis ne gannaaw taksaan dañoo sib ku fa naafila ndax diggante taksaan ba timis sib nañ ku fa naafila <laughs> njëkk timis it waxut ko nga day gis ne avant nga julli timis sib nañ nga naafila zidhu na nga yokk naafila gi baadal maghrib bi gannaaw timis ñeent rakk nga daan julli gannaaw boo julli timis ba yokk ko def ko juróom benn rakk ndax xadis bi ci rot danañ ko wax <laughs> gannaaw timis moom bëgg nañ nga def juróom benn rakk njëkk gaye sopp nañ nga naafila julli ñeenti rakk boo baax daa gannaaw gaye faraxi bi na nga ko xemam loo gannaaw boo jullee gaye pare na nga naafila doon ak naafila yoor yoor naafila yoor yoor muy waxtu dix heures yooyu nga julli ñaari ràkk moo ci gën a néew juróom-ñetti rakk moo ci gën a bari loolu sopp nañ ko dana am xaddis yi ci rot danañ ko wax saraxa bi tarawih yi ak naafila weeru koor kooku sop nañ ko dana wax ben waxtu lañ ko wara def ak niñ koy defé ma tahiyati and ak nuyu yak nuyu yak nag moy ñaar rak yi ngay julli bo dugg dugg ci jàkk ji koku sop nañ ko ma tahiyati and ak nuyu li masjidu ñal jàkk nga ne ko ndax bo toge rekk ni jàkk raw na la mu ne waram tafut faatut bil jël sati ci toogaay ni jàkk toog du tax mu raw la dégg nga boo toogee te julliwoo ko ñëw si jàkk ji toog te julliwoo ko mën ngaa jug julli ko bunt yooyu lay leeral <coughs> mu ne su ma saraamu soobu fii bayaani nawaafil yi ci leeral naafil yi al muakkada yu fade yi wa sujudi tilaawat ak sujudab jàngal quraan فقال من باب النوافل لمن بنت بي جانغ النافل وسجور التلاوة أكسجور جانغ القرآن أي المسلم هذا لي باب بنت له في بيان حكم النوافل تلرع النافل وحكم سجور التلاوة أكتب سجود القرآن وبيان مواد على البرب من القرآن إلى القرآن بنت بي دفعي جانغ له أتب نافلة أكتب سجود القرآن أك ينبرب لن ورا سجود سجود القرآن نون لي بنت بي جانغ له woy ndaw sopp nañ an nafila naafila ba ci mujj ga lu a wax mooy ay lu ma ci namu an noo naka li am mbaam yun ndabu sopp nañ an nafila naafila fi xeyri awqaati nax yi ci lu dul waxtu tere yi sopp nañ ci lu dul waxtu tere yi dafa am waxtu woo xam ne dañ fa aaya naafila lu dul waxtu yooyu nag lañ sopp naafila ay awqaatu waxtu yi allati nga xam ne yaxamu dana xaraam an nafila naafila fiyaa ci moom aw yakruhu wala boog yoo xam ne danañ ci moom aw yukroo wala ñu sib ko waxtu ñu araamal naafila wala ñu sib faa naafila foofu kenn du fa naafila waqad taqadama jiitu na bayaanu daalika leeral loolu fii baabi xadaayil fawaayiti ci bunt bi jàngale fay fay julli yu faat yi bunt boobu leeral nañ fa waxtu yuñ siba naafila ak yuñ ko xaraamal wal maanaam maanaam mooy ànd naf la naka naafila yun dabu danañ ko sopp fii waxtil jawaaz ci waxtu bi nga xam ne naafila dagga nafa fa aan yi mën a mu ci naafila mooy atanafuru naafila bi saraati si julli lañ wax naafila xam nga mooy ndollal rek waaye nag liñ si na mooy julli yi nga xam ne da koo dolli ci farata li anna nafla salaati ndax naafila julli afdalu moo gën min nafli xayriha ci naafila lu dul julli na nga xamee ne julli moo gën jaamu yàlla yëpp ngay naafila julli moo gën ngay naafila xaj wala xoor xam nga <coughs> mel ni nit ku dem aju màkk te aj ci moom moo gën nga julli ñaar raaka julli ñaar raaka moo gën moo gën min nafli xayriha ci naafila lu dul julli min soomin ci xoor aw zakaatin wala azak aw xajjin wala xaj xoor wala joxe wala aj julli moo ko gën li an na fardaha ndax farataa julli afdalu moo gën min fardi xayriha ci farataa lu dul julli wa kazalika wain kaan wa ida kaana bu nekkee al amru mbir mi kazalika comme noonu fa yanbaghi dana yàlla muwaazabatuhu taqoo ak lan muwaazabatuhu taqoog naa fere julli wala muhaafasatu ak wattu ala fi'li ci def ko li gën mooy nga taqoo julli ak wattu ko jëm koo def ndax julli moo gën lu dul julli maanaam naafila julli moo gën naafila leneen wali zaali moo tax xaala woon an naazim waykat bi fawaazib na nga taqoo fi'lahu def ko na nga taqoo ndax moo gën yeneen yi yeneen yi ngistal mën na cee dugg sax waaye julli moom boo ko tax koo di bëri looy naafila julli moom ñaareel nit mën na laa ñàkk gis sax ba ngistal di ci am wala boog ñu lay gis du bari su ma bayee na mu leeral <coughs> almawaadi barab ya allati yi nga xam ne yun dabu sopp nañ fiyaa ci moom an naafila nat ban sopp mu akkadan bu fade muy leral barab yi nga xam ne dañoo sopp ku fa naafila sopp gu baax a baax dégg nga fa qaala mu nekk baada zuhri ni ki gannaaw subaar arbaan ñeenti rakk wa qablu ak njëkkul subaar foofu sopp nañ fa naafila waaye sopp gu dëgër ay mas na mu yun dabu dañ sopp an nafalu naafila qabla salaati zuhri njëkk jullit subaar wa baadaha ak gannaaw jullit subaar nat ban sopp mu akkadan bu fa de bilaa xaddiñ ci dudu doyoo njëkk julli tisbaar ak gannaaw julli tisbaar sopp nañ fa naafila sopp gu dëgër ñaata rakk la mu ne amul doyo yaay xooloo mën a julli rek bal li fi nekk yegg fii dana doy fi tahsili nafli ci amal naafila ga rakataani ñaari rakk boo jullee ñaari rakk rek njëkk tisbaar wala gannaaw tisbaar baax na wal awlaa nga julli ñeenti rakk xablahu njëkk gannaaw tisbaar li gën mooy avant tusubaar nga juri ñeenti rakk gannaaw tusubaar nga julli ñeent rakk dégg loolu moo gën kama kaala comme ni mu wax wali qawli ak ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na yonent bi wax na ne man xaafasa ku wëttu ala arbain rakaatin ci ñeenti rakk qabla zuhri njëkk tusubaar wa arbain ak ñeenti rakk baadahu gannaaw tusubaar xaramahu araamal na ko allaahu yàlla ala naari safara yonentu daf ne képp ku wëttu ñeenti rakka njëkkatu subaar ak ñeenti rakk gannaatu subaar yàlla xaraamal na safara ci moom kon julli ñent rakk moo gën ku wëttu ñeenti rakk njëkkatu subaar ak ñeenti rakk gannaatu subaar yàlla xaraamal safara ci moom قبل العصر اللي كنجك تاكسان اي وين دور نشوف اي رمتاي قبل صلاة العصر اللي كنجك تاكسان بلا حد نشير دايو صبنا بلا مجلي تاكسان منافرة نافرة جنك نيار راكرة دوريك موتاك من نشير دايو وهي والأفضل لغن أن يتنفل موي منافرة بأربع ركعات سنين ترك يسلم نسلم من كل ركعتين سنين رك ندبن تلين صب نجك تاكسان نجك تاكسان li gën mooy mu naafila ñeenti rakk nga waaye nag suñ la waxee naafila ñeenti rakk xamal ne ñaar rakk yu nekk da ngay sëlmal ñaar yu nekk da ngay sëlmal lu tax mu ne na nga ñeenti rakk njëkk takusaan mu ne li xaw lii ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne rahima yàlla na yërëm allahu yàlla imraan nit koo xam ne salla julli na qabla asri njëkk takusaan arbaan ñeenti rakk yonent bi daf ne yàlla yàlla yërëm koo xam ne julli na ñeenti raaka njëkk muy julli takkusaan te yonentu ñaanam dañ koy nangu boo bëggee yonentu ñaan la yërmaande rek defal loolu wa maxalu istixbaabi nafli barab bañ soppee naafila xabla zuhri njëkk tusubaar wa qabla asri ak njëkk takkusaan mooy ini tasaaneem yaatu na al waxtu waxtu al muxtaar buñ tànn li fiili yi ngir def ko وإلا أن وقت يقدنا منا آية نكو كما تقدمكم من جيتون بدي بو فينا في راتو صبار جن ولا تكسان جن ما نام سين مختار ما جن رجلا يوح سو بانا في الحرام نفو ndax da nga war a julli ci biir moxtaan loolu na nga yokk naafile gi baadal maghrib bi gannaaw timis ay baada salaat yi gannaaw julik timis qad alimta xam nga andoon ne li am ba am yëg fii doy na ci amal lañ sopp ci naafila rakaataani ñaari rakk faqat dong naafila boo julee ñaari rakk rek baax na laakin waaye nag tustahabu sopp nañ ziyaadatu yokk fii ci naafila gi baadal maghrib bi timis ila sitti rakaatin ba juróom benn rak gannaaw timis moom bëgg nañ gannaaw fira juróom benn rakk yu salli mun na salmal min kulli rakaateen si ñaari rakk yu nekk ay den ba tey juróom benn rak yooyu moom ñaar rak yu nekk da ngay salmal kon gannaaw timis julli ñaar rak yu nekk nga salmal lu tax li xawli ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man salla ku julli baadal maxrib bi gannaaw timis sittata rakaatin juróom-benn juróom-benn la wax kon gannaaw tamit julli juróom-benn moo gën la wee takallam waxut baywun na si diggante rakk yooyu bi lu bon maanaam lu ñaaw adal na danañ tolloog loo ñeel ko ibadata isnate asrata asrata fukki at yaa ngi dégg de gannaaw timis julli juróom-benn rakk yoo xam ne ba nga jullee timis ak juróom-benn rakk yooyu diggante boobu waxoo ci lu ñaaw yàlla dina la bindal ku jaamu yàlla juróom fukki ak ñaar xam nga bonus yi nga gis ci téléphone yi mu am bu yàggut dafa am ci adara yàlla ba péew yàlla ba yàlla day am day am yoo xam ne bonus la ciy def ni nga xamee ne boo jëndee crédit léegi-léegi jël yenn code dugal ko dangay am bonus boo jullee timis ba pare teg si juróom benn rakk te diggante bi waxoolu ñaaw bonus su ku jaamu yàlla fukki ak ñaar lañ lay bindal yu valable nag da ngay mel ni fukki ñaar yooyu da nga koo jaamu xam nga loolu am na solo wa fii waayatin beneen nettali mu ne xufirat jégal lañ ko zunubu bakkaaram yi wa in kaana bi nekk na misla zabadil baxri mel ni furitu géej gi beneen riwaaye mu ne boo jullee timis teg si juróom-benn rakk sa diggante bi waxoo ci lu ñaaw yàlla jégal la sa bàkkaar yépp jële dafa bëri ba mel ni furitu géej gi kon loolu si supprimer bàkkaar la bokk xam nga téléphone am na supprimer am na bito yoo xam ne boo ko bësee rek li nekkoon sa téléphone léegi da nga koy dindi supprimer bàkkaar dafa am waaw bii si supprimer bàkkaar la bokk julli timis teg si juróom benn rakk dafay supprimer sa bàkkaar yëpp xam la ne saa njëkk gaye wa baada gannaaw gaye farax bii na nga ko xemam loo ay atanaful naafila xabla salaati na saa yi njëkk julli gaye wa baada gannaaw julli gaye man duubu luñ sopp la mu akkadun lu fadde la مرغب نقيم لنا فيه تموم وافضلو بيجي جنت بعد انا شاي موي غناو غي ولا بو وافضلو لي جي بعد انا شاي غناو غي ان يكون موي مو في سورة الاخير سي نيتلو خاج بو موجي غم من ليري تشي غديك هو موم التهجد موي جولي غدي نافل نجيك غي اك غناو غي خمم نانكو لي جن نك موي بو جولي غي با تد قاربه ñetteelu xaaju guddi gu mujj gi dugg nga jug jàpp naafila loolu moo ci gën dégg loolu moo gën loolu mooy julli guddi nelaw ba pare yeewu julli maanaam boo xaajee guddi gi ñetti xaaj ñaari xaaj boo xaajee guddi gi ñetti xaaj ñaari xaaj yi bu jàllee xaaj ñetteel bi dugg rek nga naafila ndax heure boobu lañuy wax ne ci la yàlla wàcc hadis bi def na yàlla dafay wàcc ci guddi gi mooy ñetteel xaaj guddi gu mujj ga yàlla dafay wàcc naan ku may ñaan ma may ko ku may jéggalu ma jéggal ko jamono boobu bu tombee ngay ñaan yàlla ñaan gi dafay nangu bu tombee ngay jéggalu yàlla yàlla daf lay jéggal bu tombee ngay jaamu yàlla yàlla daf koy nangu moo tax ñu xaar bëgg nga xaar ba jamono boobu ngay jaamu yàlla mooy boo xaajee guddi gi ñetti xaaj ñaari xaaj njëkk yi bu jeexee xaaj bu mujj bi dugg rek jeex na ngay jël guddi gi boo xamee ñaata heure la fukki heure ak ñaar la nga diviser ko par trois juróom-ñetti waxtu yu njëkk yi bu jàllee rek ñeenti waxtu yu mujj yi mooy soosu ak ñetteel xaaj guddi gu mujj defa ñaan si soxla yeewu ñaan fa soxla jaamu fa sa borom. bàyyi dafa mos la rek benn naar naar bi ne yàlla dafay wàcc ci guddi ci guddi gi mu ne moom yàlla si boobu mooy wàcc xam nga gars yi dañuy wax ne yàlla dafay wàcc yéen maa dem naar bi ne déedéet yàlla mooy wàcc bàyyi na yàlla mooy wàcc mu ne déedéet ñu waxtaan ci bàyyi na yàlla wax ci alxuraan nu ko waxee sax wa anzala aleykum min al anami yàlla na wàcceel naa leen ci ay juru kër samanita azwaajin juróom-ñetti xeet mi ne daanis nay ni wàcceel naa leen ci xar ñaar ci bëy ci nag hmm? ah bàyyi ko ñun saa saa yuñ xëyee dañuy gis ne xar yi dañoo jur xar bay yi ñoo jur bëy gëlëm yi ñoo jur gëlëm yàlla def leen a wàcce nu mu leen wàccee waa ji ne waa ne ko xaw ma ko mu ne ku xamul nu bëy xar yi wàcce wàccee nooy xamee nu yàlla wàcce xam nga laaj yi force nga taawil ko moo tax bul rek ñu ne wàcc rek nga yaakaar ne jëmm yàlla ji mooy wàcc ah parce que yàlla wax na ne dana leen wàcceel nag xar bëy ndax dafa wàcc gisoo benn xar mu wàcc wala nag mu wàcc wala bëy mu wàcc da gis ñuy jurante kon wàcc gi foofu mooy xalaqa bind na rek wàcc gi yàlla nga fële yërmaaneem rek lay wax yàlla dafay wàcc yërmaaneem foofu waaye yàlla nekku ci barab bay wàcc ci barab xaala wana taala yàlla mu kam ne may léeri ci guddi gi fa taxaja na nga julli bii ci moom naafilatan muy ndolla la kañeel la ay salli julli bii ci guddi gi ay bil quraan ci alquran fii qiyaami léeri ci naafila guddi na nga julli alquran تنافل قدك به يوم أنا بالقرآن أنا أقول لي القرآن تنافل قدك وقيام الليل نافل قدك فرد فرط على في عقيد في عقيد النبي صلى الله عليه وسلم من دوب لنصبر في عقنا سنياق يوم النبي مام دفور نافل قدك فرط على تمام waaye ñun naa fi la gudd dañ koo sopp ci ñun doxan lay saraxa mu ne ay lu mas na moom woyu ndabu sopp nañ nat ban suñu sopp mu akkalan bu fade doxan naafila yor yor sopp nañ sopp gu dëgër naafila yor yor ay asraatu julli fi waxtu duha ci waxtu yor yor woo moom min xilli naafila mooy bu naafila dagane li waxtu istiwa yi ba ci waxtu xemo jamono bi naafila dagane ba ci waxtu istiwa jamono boobu moo di yor yor kon yàgg na gudd na naafila fan lay dagane naafila mu ngi dagane si bu jant bi fenkee ba yëkkati ko waxtu istiwa mooy waxtu wi jant bi nekk si digg asamaan si ba mooy waxtu istiwa nga xam ne jéngagut kon daanaka bu jant bi fenkee ba yëkkatiku ba tusubaar diggante ba yor yor la sopp nañ ku fa naafila wax nañ ne ku fa julli ñaar rakk sa cër yëpp saraxe <laughs> واقل دوها لغنا نوتي يري ركعتان نيان راك لا لي قولي غير وخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم ركعتان نيان راك من الدوها تي يري يعني لا ني تولك عند الله تي يالله بحجه تي حج وعمره عمره متقبله نانغ لي بونيس لا بونيس غن بونيس ينك بيو غين دي سي غور ولو بو باخ باخ باخ باخ غن كو تابي ndolilam man na ëpp fayam foofu nañu bëri lañ ci jume waaw dañuy ñëw ñuy gis loo xam ne lii du farata nga wax ci tiyaaba goo xam ne gis nañ ne ëpp na tiyaaba gañ xam ci farata ñu ne lii du dëgg ñu ne du dëgg du dëgg parce que nangam nangam lii nan la mën a xamee gu mel ni ma ne bëri tiyaaba tekkuwut ba ëpp nga neen tekkuwut gën mbir mën naa gën a bëri tiyaaba waaye fekk gënut bëri tiyaaba masiye la yàlla mooy xool lu ko neex mu def ci lu ko neex Omar ibn Xataab am na mbedd mu mu jaar seytaane du fa jaar yonent bi moom mooy kuttanteeg seytaane kuttante seytaane mu koy dikkal ba mu koy kutt te Omar moom bu seytaane di seen daw ndax dafa tax Omar gën yonent bi masiye la kasratu sawaab noonu la mel buur bu tabe mën na laa wax ne liggéeyal ma soo ma liggéeyalee ma fay la weer bu dee cinq cent mille ci misaal damay jox misaal rek weer dee mu fay la cinq cent mille may la un million ndax moom lim la defar ci coobare muy ëpp fayam ku tabe ñaareel ndoola la mu ëpp fay ka yàlla nag bu la doole la ci moo tax naa li lii jàpp ci bu baax léeg-léeg nga am ci tiyaaba gu rëy hmm? yàlla wax na ne ñi rafetal am nañ xusna aljana wa ziyaadar ak yokk yokk gi mooy lan ñu mooy gis yàlla te gis yàlla moo dàq aljana kon ndoolalam mu ëpp fayam hmm? ndax loolu si coobare boppam la koy defee ak yërmande ñaar rakk yor-yor nag ci bonus yi la bokk <laughs> fexeel loo gàtt gàtt yi rek ndem bàkkaar mënu ñàkk ndax jamono bi bàkkaar dañuy taw comme nuy asamaan si sawe néew na nit ku ci mucc kon fexeel yii nga takk takkoo moom dégg mooy ñaar rakk yor-yor dañuy tolloog. xaj ak omra gu yàlla nangu aj guñ nangu lan mooy fayam aljana loolu la yonent wax ne amul benn fay lu mooy aljana ñaar rakk rek mu mel ni aj nga omra nga est-ce yaa ngi dégg lu mu wax hmm. rawaawu net na xadis boobu cheikh ci yool yi ana anas jëlee ko ci anas waa ak la ci gën a nag samaani rakkaat mooy juróom-ñetti rakk waaye ñaar rakk yooyu boo ko julli am nga tiyaaba gi waaw surtout li ci gën a diggu doomu sittun mooy juróom benn rakk mooy julli yor yor juróom benn moo gën a diggu doomu juróom-ñett moo gën a bari ñaar rakk nag moo ci gën a tuuti waaye ñaar rakk yi boo ko julee rek am nga aj ak omra gu yàlla nangu yàlla nañ ko yàlla defal fa yéen bëgg dana yàlla al muhaafasatu wattu alayhi ci moom lil fadli ngir nga neel alladi bi nga xam alim too xam nga ko garde ko bu baax ndax nga neel li ci nekk buñ la wax ne julli ñaar rakk nangam nangam da nga xeeb ko de daa am tiyaab yu bëri ci nekk xam nga crédit da nga ko jënd 1000 francs nga dugal ay kor rek am lan am 5000 bonus bi ñu la may mu ëpp fuuf lañ lañ la la nga jënd waaw bonus léeg-léeg mu ëpp de ñu ñu bëri na ñoo yaakaar ne bëri tiyaaba euh, du am ci naafila léeg-léeg naafila yi tiyaaba gu nekk ci way maa fi onxuudi muhammad ya ak nekk ci téere bu ñu tuddee onxuud al muhammad ya dëhali muhammad boo demee foofu da fekk mu ne man waasa ba ku taqoog ala salaati ala salaati duha si julli yor yor lam yaqrabu du ko jege jinni yun këjug jinne illa xtaraq lu mooy lakk na kuy taqoo naafila yor yor bu lay jinne di jege lakk su lay jinne di jege lakk xam nga xaar ba jinne yi jàpp la nga dem ci sëriñ yoo xam ne nii mën naa am kenn xamut ñu lay faj ngay julli ñaan rakk yi ba junne du la jege moo gën ñaar rakk yi ku ko julli bu la jinne di jinne di jege dafay lakk loolu moo nekk si uud al muhammadiya taraawi ak naafila weer koor sopp nañ ko jamu tarwiha wal muraad lañ namu biyaa ci moom qiyaamu shahr ramadaana mooy naafila weer koor su mu tuddee nañ ko bi zaalika ci loolu taraawi li anna salafa saalih ndax mag ñu baax ñi kaanu nekkoon nañ yajlisuuna di toog baada kulli rakataani atayni gannaaw ñaari rakka mina ci julli googu li siraati ngi noppalu nañ ko doon defee mooy ñaari rakk yu toog noppalu mu doon jamono tarwiix mooy noppul rek mu jógee saraaxatu gi firi noppalu léegi nag bu ñu doon julli ñaar rakk eh, julli weeru bu ñu ko doon julli nga toog ba ci digg ba nga noppalu gars yi dañ xoolaat bëtu ah, kii de moom dafa gaaw a sonn moom jullee gu ñaar rakk rek mu toog fekk noonu la ko doon gars yi defee hmm? ñaar rakk yu ñu julli noppalu am nga sax nga sonn ba pare di continuer loolu ngistal la toogal ba pare nga jugaat waxuma na nga toog ba ñu rukkoo nag ndax bul nangoo dara raw la ci waaw mais dinaa julli ñaar ràkk noppalu julliwaat noonu lañ ko doon defee dégg waaye moom it sunu na rakkaata ñaar fukki rakk la baax daa nekk na si gannaaw ko safoo safaa wala watara guy ñaar fukki rakk lañ daan julli gannaaw ko ñu teg si safaa guy tar muy ñaata muy ñaar fukk ak ñett <laughs> pourtant yonent bi wax nañ ni mosul romb fukki rakk ak ñett. waaye saxaaba yi moom ñaar fukk ak ñett lañ daan def kon bëgg laa tënk lañ ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla gu nekk liñ ba mu ci def loolu rek nga ci war a def waroo koo yokk loolu du dëgg doon dëgg saxaaba yi def ko wa waxtaa waxtu wa kal witar kam witar baada wax nañ la sañoo koo julli te safax gi fàddoogut xataa boo julli woon gaye njëkk safax nit nga boole kook timis sañoo julli witar lu mooy bu safax fàddee naafila weeru koor yi noonu la mel kenn sañu koo julli te safax fardoogut ba baax na ishaay nag gannaaw gaye sa xeetin bu wér naafila weeru koor balaa nga koo julli foo nga julli gaye ba pare waaye foow gaye gi baax dégg falaw su leer ko julli woon beneen maxrib bi diggante timis wala ishaa ak gaye on yi danañ ko baax mu baax na ishaay gannaaw gaye nar ban ci luñ sopp bu dee diggante timis gaye si nga naafila weeru koor dañuy sopp nga julliwaat gaye naafila waat ko ndax moom dafa waxtu mooy gannaaw boo jullee gaye ba pare balaa ngeen koo julli da ngeen war comme ni nga xam ne witar boo ko jullee njëkk gaye baaxul boo ko jullee diggante timis ak gaye naafila nga rek waaye naafila weer koor moom ba léegi des na boobaa wanu di ba sopp nañ salaatu waa julli ko jamaatan ci mbooloo fil masaajid ci jàkk yi sopp nañ julli ko mbooloo defee ko ci jàkk yi loolu nag Umar ibnu Xataab moo ko sunnaal dégg wunu di ba sopp nañ al infiraadu wéet bi yaa ci moom fil bayti ci kër gi aw maal ahli wala ànd ak sa waa kër in lam tuattal lam yuquluñ al yi jàkk yi bu dee nag boo di mu jàkk ja jàkk ji du wéet mën nga koo sa kër ak sa njaboot moo gën a mucc ci ngistal mais nag bu fekkee boo mu jàkk kenn du dem jàkk ja wéet nga dem ci jàkk ji moo gën yi ndaw sopp nañ lil ahyaani ñeel kilifa yi alladina ñi nga xam ne yuqtadaa danañ roy biim ci ñoom an yusalluha ñu jullee ko fi masajidi ci jàkk yi li allah tuattala ngir bu ñu yuqal jàkk yi kilifa yi sopp nañ ñu jullee ko ci jàkk yi ngir bu jàkk yi wéet foo li ma danañ xam min zalika ci wax jooju al infiraada na wéet gi man dubu ni sopp la فياق غيره فياق غير من تياق كو كدول كي خامن يقتلا دا نين روي بي سي موم بري دا لي روي نا خامن بو مو داك ني ني دون دم دم داك جي مو گن سيو بودي نك يو كين روي لو بو مو داك جي تيو ني دا نين دم سو بوبا nga defé ko sa kër mo gën way ndaw sopp nañ al khatmu motal al qur'an fiya ci mom ay khatmul qur'ani motal al qur'an kullu laylatin bépp guddi min layaali ramadaan ci guddi weeru koor juzan ab xaaj min alquran ci alquran ala rakaati alqiyaami ci rakkay naafila yi maanaam guddi gu nekk rek na nga jàng dara ci alquran ba mm, bu weeru koor bi jeex nga tëj ko comme ni koy nit ñu bëri defee noonu ñuy defee nag di jàng xatmul quran bi xatmul quran bi maanaam di jàng xatmul bi guddi gu ñu koy tëj ci biir julli gi loolu moom yonent defut ko saxaaba yi defuñ ko taabi yi defuñ ko <coughs> di si suñ mbokk waxaab yi ñu ngi koy def te ñoom nee nañ lu yonent defu duñ ko def jëlewuñ ko fen jëlewuñ ko fen boo war a doroot na fi fadli ci ngëneelam ahadis ay hadis kasirat yu bëri am na hadis yu bari yu ñëw ci yu ñëw ci naafila weer koor min qawli ci wax yonent bi salaa sallam man qaama ku naafila ramadaan weer koor weer koor imaan gëm yàlla waxtisaaban ak sàkku yoor yool gufira jégal nañ la ñeel ko maa taqadama la jiitu min zan bi ci bàkkaaram yonent nee na ku naafila weeru koor ngir gëm yàlla ak wut ci tiyaaba yàlla jégal la bakkaar yi jiitu maa taxiyati ànd ak nuyu jàkk ay woyun dabu sopp nañ mu àkk daan sopp gu fade taxiyatul masjid nuyu jàkk woyu moom rakkataane ñaari rakk la faqat dong nuyu jàkk ñaari rakk la hmm? wal muraad lañ na bi masjid si jàkk almawdi mooy barab almuad buñ préparé li siraati julli kaana nekk na jaami'an di jàkk joo xam ne jaamee la mooy jàkk ju ñu mën a julli àjjuma aw xeyroo wala lu loolu ka zawaaya comme zaawiya xam nga léeg-léeg tabax rek benn ruqam boo xam ne pour julli la ci këram kooku du masjidu jaami'a zaawiya la hmm, waaye boo fa duggee bëgg nañ nga julli ñaar rek boo demee si jumaa yi nga xam ne jumaa la pour ñëpp it boo fa duggee war nga bëgg nañ nga julli ñaar rek barab boo xam ne julli rek moo ko tax a jug foofu lañ namm ci jàkk boo fa duggee bëgg nañ nga julli ñaar rek maanaam waaw yu mel ne zawaaya yi foo ñu dëbu sopp nañ li man daxala ku dugg masjidan jàkk yooyu du mu bëgg aljuru su toog bii ci moom lal mu ruura waaye waxuma romb wuta fekk moom ala taxariti mu ngi ci waxtu jawaasin ci waxtu wu dagana naafila yu salliye mu julli rakkaatee ne ñaar rakka li taxiyat ngir nuyu jàkk ci xablu an yajlis njëkk muy toog ku dugg jàkk bëgg faa toog waxuma rek moo bëgg a romb ku bëgg a romb moom jërul muy julli parce que toogu dafay romb ci jàkk ji waaye bu dee da a te waxtu bi dagan na naafila bëgg nañ nga julli ñaar ràkk balaa ngay toog yaa may déggam ñaar rakk yooyu nuyu jàkk la tudd bu léegi nuyu jàkk rek nga dem si jàkk naan ko asalaamaaleykum jàkk soxla loolu ku nekk ak nuñ koy nuyoo wala tëfuutu du faat indi naa fa ñun bi juróom si toog indi naa nag bu ko waxee mooy ngiram Malick ñun Malick toog te jullee googu du tax mu raw la boo toogee te jullee googu it jugal julliku wala su lay cosaan fii daal ci maa war a da mooy la rod na an abi zarin jëlee ci abu zar qaala mu ne daxaltu dugg naa almasjida jàkka ja fa qaala mu wax lii ñeel ma rasulullah ci alayhi sallallahu alayhi wasallam inna lil masjidi naka ñeel na jàkka tahiyatun ak nuyo dégg abu zar ne damaa dugg ci jàkka ji yonent ne ma jàkka dañ ko war a nuyu xultu ma ne ko maa tahiyatu lan lan lan lañ koy nuyoo yaa rasulullah yow yonent yàlla bi qaala mu ne rakantaani ñaari rakk tarkan ma yoo xam ne da nga leen moo tax ñoom dañoo muus xam nañ ne jàkk bokkut ak nit moo tax yonent waxu ko ne ko jàkk dañ ko war a nuyu rek mu a ah, asalaamaaleykum déedéet daf ne ko nuñ koy nuyoo mu ko ñaar rakk yooyu julli saxaaba yi ñaawoon xel lañ wa tahiyatul masjidi makka nuyoo jàkkaay makka li afaaqiin ñeel ko ju mooy wër mooy ku dëkkul màkk ku dëkkul màkk bu ñëwee màkk dafay wër kaaba ga bu duggee ci jàkk yi day wër kaaba ga loolu mooy nuyoo waaye bu fa nekk di julli dee dëkkoo màkk laa wax nga ñëw fa boo duggee ci jàkk ji doo julli da ngay wër kaaba ga wari màkkin bu dee màkk la maanaam bu dee màkk nga bëgg laa te bëggu tawaafan wër rakataane ñaar rakk la dong bu dee màkk euh, nga dëkk waaye ba nga ñëw ci jàkk ji wër kaaba ga moo tax a boo duggee ci jàkk ji doo julli da ngay wër kaaba ga loolu mooy nuyoo jàkk ba su dee màkk nga dëkk dégg nga te ba ngay dem ci jàkka ji nu mu tuddati sax lii moo la tax a jóg wër doo julli da ngay wër bu dee nag la la tax a jóg mooy julli wala boog bëggoo bëggoo wër kaaba ga daal nga dem ci jàkka ja boobu nuyoo jàkka moom mooy julli foofu kon nuyoo jàkkaay màkk danay nekk julli ci koo xam ne ni màkk la dëkk te bu muy dugg ci jàkka ja wër taxu koo jóg ku dul kooku nag bu ñëwee foofu def koy dangay wër kaaba ga rek xam nga ne moom wa man daqala ku dugg masjidahu jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi madinatu munawara ci madinatu munawara yunda bu sopp nañ loo ñeel ko an yëpp daa mu commencé bi tahiyatil masjid si nuyu jàkka ja xabla salaam njëkk muy nuyu alayhi ci yonent bi isa daqala bu duggee fi waxtu jawaazin ci waxtu bu dagana naafila bu dee dafa dugg jàkkaay madina bëgg nañ mu nuyoo jàkka ji njëkk muy nuyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dee waxtu bu dagana naafila la ndax nuyu jàkk xaq yàlla la xaq yàlla moo gën a foor xaq mbindeef nuyu yonent bi xaq mbindeef la way laa nem waxtu woowu daganuta naafila mu dugg ci jàkkaay masjid mën a war a ba daana commencé bi salaam ci nuyu ali si yonent bi sallallahu alayhi wasallam na njëkk nuyu yonent bi bu dee waxtu woowu daganul naafila waxat ba sattu tàllal na alkalaam wax fi may tàllal ko ci la aju bi zaaliku ci loolu bi manasik naa si ci ci téere bu mu tuddee manasik gën na ko yaatal foofu wa maanaa qawlu naazim naazim Euh, li masjidin na nuyu ñeel jàkka wala mu tafut te du faat bil jil sati ci toog toog bi tax mu raw la ndax mën ngaa jug def ko loolu maanaam in uridil islam astantu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh